مذكر xibaar bu tiis rekk lañ leen fas ni eggee muy génn kii di Yaa Ami Ndaw ñu gën koo ràññee loola ci compte boobee di maam ak sëtëm mu nekkoon koo xamante ne si da doon foo ak sëtëm doon béggal ñi nga xamante ne si nag ñoo di ñu nekk si tiktok bi moom moomee nay wuy ji boroomam nekk yaay ki nga xamante ne si nag moo di imam Cheikh Tidiane Sall ak Souleymane Sall danañ koy daal di jébbal boromam tey ci altine ji bu 5 heures jotee foofee ca Yoff ci sama kàddu waa Dakar Buzz ñu ngi koy jaale di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. kër Mamadou Léegi. ñu dem doxal doxal karuwaasu eh. ah? mag. ani. karuwaas. luy loolu. karuwaas. ak maas. karuwaas dóor dóor. dóor. yow dinaa la dóor commencé dóor. commencé dóor man. ah de dañ koy wax rek kay. Eh. <laughs> léegi da nga na xaree wax ak yow. yow nga may jàppale ah. ah. xoolal <laughs> si fii lañ jëm mu ne lay wiiri ji par force. salaamaaleykum. waaw yaa booy. Sall daa dootoo ma jàppale. ba ma ñëwee rek du ma ñëwee fekk ñu ngi daje fi mel ne ña laayee marché. nit ñi la namoon nit ñi. nit ñi la namoon ah. garaase nekkul fi maa fi nekk. Ah, ah. waaw. ka ma ka joxoon. waaw. waaw. indi. Dakar Speed ñoo ma jox genn gi. gi la ñu ma jox. mais na wax ba pare bu ko jox xaalis waxal ba pare eh, eh, eh? mu ne. Dakar Buzz. Ah. waxal waxal na fi yomb ma tee ba ne joom Dakar fiir ba ne yow ma teel. Dakar buzz waxal Dakar buzz. Eh, eh, Dakar fiir. Dakar buzz moo gën toog ba ne yow ma. waaw Dakar buzz. Dakar buzz xaas ma kon Dakar buzz. ndax gis naa la nga yor piir ba sa yoon wa. Eh. yaaka yaay dem ba yow yaay sëtum de pagay doom sambi maam waxal Dakar Buzz ñu jënd kerem waxal Dakar Buzz Dakar film keeka moom Dakar Buzz waxal ñu jënd kerem waxal Dakar Buzz waaw Dakar fii loolu la bëggoon amen eh, amen amen mi ngi noonu ah, ñu koy nuyu lu bare bari moom Fadel suñu càmmeñ suñu xarit wax dëgg